lay teema jóg way fi ngeen Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mi nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall tey ci talaata ji dëppook le 8 février 2022 sëriñ bi bàyyeekoo na ci dëkk bi nga xam ne moom moo di njaareem ngir fas yéene dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di poroxaan ngir teewe màggalu soxna Mariama Bousso Jaaratullah la la sëriñ bi nag bi muy bàyyeekoo fii ci njaareem ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñoom la àndaloon njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi lañ ñoom ñëpp ñu àndandoo def convoi ko njaareem daal di jaar fi nga xam ne moom moo di Kaolack. la la la fa la ilaha la la la ilaha la la la ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah bi ñuy agsi ci Kaolack ay taalibe yu takk lool ñoom ñoo leen gàttandu fi nga xam ne moom moo di ci entrée dëkk bi àndandoog sëriñ bi def benn convoi wane seenuk mbégte ci jaar gi nga xam ne sëriñ am di Fall moom sëriñ Modou Mbend mi nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall jaar na ko ci Kaolack doon dem ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Poroxaan ci màggalug Maam Jaara gi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 la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la la sëriñ bi bi mu agsee ci Kaolack jaar na fi nga xam ne moom moo di ci kër sëriñ Cheikh Fall Baye góor gi nga xam ne sëriñ Cheikh Ndigal Fall moom moo ko yor jamono jii mu nekkee ci tabango yi ci ngan goo xam ne sëriñ bi amal na ko fa bi mu ñëwee sëriñ Cheikh Ndigal Fall daal di koy teertu tatagal ko dalal ko ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ko fii ci kër sëriñ Cheikh Fall Baye góor gi nga xam ne moo nekk fii ci Kaolack. ñu amal fa ngan gu yaatu goo xamante ni waajal nañu ay bernde yu am solo yoo xam ne ñu jagleel ko mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi ak taalibe yi lépp rek sëriñ Cheikh Ndigal Fall fësal ak mbégteem ci ñëw gi nga xam ne kilifaam sëriñam ñëw na ko daldi koy nemmeeku si. Allah ginnaaw bi fa sëriñ ba bàyyeekoo euh, taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci Kaolack àndandoon nañoo xalif général des Baye Fall muy sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda gunge ko ànd ak moom ci biir Kaolack def convoi bu am solo daal di koy gunge ba ni nga xam ne noonu la génnee Kaolack waaye ki nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Ndigal Fall dafa ànd ak sëriñ bi gunge ko ba keroog mi agsi fi nga xam ne moo di ci dëkk bu sell bi di Poroxaan Bala fa la la ha la la fa la la ha la la fa la la ha la la fa la la ha la la fa la la lay tee ma jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmal boppam soxna jaara